Euh, dal leen ak jàmm mbokk internet yi yéen ñi nga xam ne rek yéen a ñuy bàyyi xel euh, saa su nekk rek ñuy dikk ak yéen ci li nga xam ne rek moom moo gën a fees ci ay xibaar jamono bi ñu toll nii nag mën nañ ne kat député yi nga xam ne rek ñu ngay dund lu métti métti foofu la ci assemblée nationale image yi nga xam ne rek moom moo koy firndeel député bi nga xam ne rek moom mooy euh, Massata sambo doon tele nag daal dinay jot subir ay conséquences yoo xam ne rek jot na génn xam ne kat gannaaw voté ba nga xam ne rek ña nga doon amal nit ki démb loxoom bi ba jamono bi ñu toll nii ma ngay metti te li ko waral nag du leen dudul pamti pamte goo xam ne rek daal nañ koy amee jëmale ko ci kawam ba naroon ko daal di damm nag te ñëkk def nag du lenn lu dul garde yi nga xam ne rek ñoom ñoo ko doon daal di génne gannaaw nag ba ñu daal di lànk rek ku ci mel ne Guy Marius Sagna ba mën nañ ne sax jamono bi ñu toll nii ñoom ñëpp rek gannaaw ni ki tey daal di nañuy jot a génn yëkkateeti seen i kàddu nekkat duñu seetaan benn yoon lii nga xam ne rek moom la kii di président de la république daal di jàllale te muy décret bi nekkat même bu fekkente ne signé na ko sax na ko leer que nekkat mbir minimal moom duñu seetaan benn yoon muy jàll ci réew mi di Sénégal tax nag ñu daal di fas yéene sumb li nga xam ne moom mooy ab xeex boo xam ne rek amul àppal la doon tele nag jamono bi kii di président de la république daal di nay siisu ba passé siisu nekkat du delluwaat gannaaw ci décision yi nga xam ne rek daal dina koy jël wante kat opposition bi nekkat danañ ko jaay li nga xam ne rek moom moo di dëgëru bopp euh, kon donte kat jamono bi ñu toll nii li nga xam ne rek moom moo nekk ci taabul ji du lenn lu dul rek rassembler wu pour naka mën a fa yéene jàmmaarloo ak kii di président.